Mballo Dia Thiam ñu ngi lay nuyu di la dalal. waaw ah, maa leen di fay waa mi. yow nga jiite euh, And Gueusseum maanaam yaay président And Gueusseum doon tamit secrétaire général euh, syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale muy SUTSAS ñu gannaaw bañ la jaajëfalee ñu wax ci li nga xam ne moo xew euh, ca Linguère ca l'hôpital Magatte Lô la fa xew ca week-end bi jéggi na dayo tey jii kenn ñaanu ko waaye gis nañu directeur bi te tekki ndombal tànkam gannaaw nag ba ministre bi daal di suspendre personnel bi nan nga jàngat impacté waaw ñu ngi naxarlu la fa xew parce que ay tout temps yoo xam ne di naan sax ay malaaka lañu euh, ñu ñu leen ñu dénk leen ci hôpital bu mel noonu bon. Euh, safara ñëw yóbbu leen te safara bi mu méttee loolu métti na lool si ñooñu génn àddina mais métti na encore lool ci famille yi mais def naa ne aussi métti na tamit personnel bi nga xamee ni ñoom dañu dénkoon ñooñu mhm. euh, suñu njàngat daal mooy que ministre de la santé euh, na benn mesure pour suspendre ñëpp nekk. Mhm. Euh, euh, defe naa ni bu fekkee ni li ci dooleeku muy docteur bi daal di démissionné. Mhm. mais naa pour mën a yombalal enquête bi. ndaxte lu mel noonu amee il faut que ñu xam safara bi lan exactement moo tax am. Mhm. waa ensuite maintenant bu fekkee safara bi am na kan moo waroon def lan wala kan moo waroon def lan ba safara bi am. ko loolu moom foofu lañ ci toll ñun mënuñu ci sori du xabaar rek bu ñu jox rek buñ ko mënee baaxal ñu wax ko mais du ñun ñu wax ni lii mooy xew wala lan mooy bi moo war a wax lan moo xew ak lan lañu war a mun a def ci mbiru boobu boobule sax dégg nañ la ci ci ndoxteelu semaine bi euh, mu mel ni da nga écarté court circuit gi nga xam ne ñu ngi koy laam-laamee lu waral loolu waaw li waral loolu parce que ñun tamit euh, dañu am aussi suñu ay ndaw ñu nekk foofu si hôpital boobu la waaw bu dee nee nañu ci xayma yi daal xalaat nañ ni du court circuit mais lamp ya fa nekk ci table jooju mu indi problème boobu loolu rek la ñu mën a jàpp ni du problème climatiseur donc problème mu lamp bu nekk ci ci ci ci table yooyu la parce que xam ngeen ni ndiir si boppam dafa ragal sedd. moom la tubaab di wax euh, l'ennemi numéro un du bébé c'est le froid euh, ba tax na nag liir bu joge ci biir yaayam foofu dafa tàng bu ñëwee ci biti àddina si dafa war bu tàng surtout que bu fekkee matulee bon ba tax nag euh, dafa am ay lampe chauffante maanaam ay table yu ñu naan ay la table chauffante dafa ay lampe yooyu mën a tàngal bërëb bi pour que liir bi du liw waaw loolu moom ci nañ ko ci xëy na nag lampe yooyu ñoom ñoo ko taal te nag li mat service loolu loolu ñi ñi doon ñoo xalaat ni d'abord mën nañu wax ne électricité bi court circuit mais ñun lu ñu ay enquêteur xam ne lu ñu demee enquête ci boppam moo war a wax ni li ñu naan hypothèse mën na nekk court circuit mën na nekk table jooju mën na nekk aussi leneen wante comme que ñu wax noonu lañ doon wax rek moo tax bañ ko waxee aussi ñu wax ko mais mënuñu ci am mënuñu ci am benn firnde bu leer bu dul li ñu xabaat bi ñu rek moom lañ jàpp noonu bëriwul luñ koy dégg te yàlla bu mu fi amati waaye tey ji ndax am nga yaakaar ne bu amoon ay nit yu fa nekk muy personnel de garde jëyo gi dinañ ko mën a maîtriser. Ah, xam nga euh, li ci am solo mooy euh, personnel de garde bu fa nekk nekkul personnel bu nga xamee ni euh, service néonatal boobu moom moo ko moomal boppam. Mhm. nekku ñu ñoo xam ne dañ koy nekk suba ak woon di toppatoo xale yi. Euh, d'ailleurs euh, hôpital bi sax góorgóorlu na parce que dafa amoon ay liir yu matul yoo xam ne daan génn àddina ak yu mel noonu mhm. ñoom pour régler problème boobu ñu ne dañuy créer service d'ailleurs sax ki jiite service sax du pédiatre mhm. médecin généraliste la ñu ñu dénk ko liggéey boobu la ñu wut seen i couveuse ak seen i table pour jéem a fexe loolu du war a mun am maanaam ñu mën a jéem dara daal ci ci mortalité xale yooyu la loolu loolu mooy sabab bi ah léegi nag comme que def nañ service boobu personnel bi dafa manqué ñooñu fan nekk ci salle boobu li ñuy wax ñoom ñoom ñooy toppatoo xale yi mais ñoom tamit ñoom ñooy dem ci yeneen salle yi di toppatoo euh, yeneen mag di ay perfu ay ay yeneen mag def ay perfusion def yëpp donc ay ñett la ñuy doon bare wuñu ku ci nekk nga am looy def na nag bu ñu waree wàcc aussi <laughs> am na jumtu ay ñu jël matale ko donc ci leen bi moom xewee donc ba tax na donc li ñu ci mën a wax daal mooy euh, jëye yi ñëw na euh, ndax mënoon nañ ko éviter ndax mënuñu ko éviter loolu enquête moo ko mën a wax. waaw tey jii euh, ñuy wax ne négligence dafa am ci mbir mi ndax yow ànd nga ci ñi koy wax. non maa ni mënuma wax am na négligence mënuma wax ni amul négligence. Mm. comme que mbir mi am na ñu koy saytu ñoom ay enquêteur la ñii waral eh, ñii ay technicien la ñu yële ay ay ndawal buur la ñu maanaam gendarmerie. Mhm. bon léegi ñoom ci seen wàllu bopp ñoom ñoo war a wax ni négligence am na wala négligence amul loolu moom moo ko wax mais li am solo daal mooy euh, euh, bërëb bi daal neew na ay fajkat fajkat ya fa nekk ñoom ñooy toppatoo ñooñu xale yi ñoom ñooy toppatoo si ñeneen mag fa nekk. Mhm. bon te service bi nekkul service bi a xam ne xëy na def ko famille yi. wante service bi xëy na ni mu waroon demee demul noonu ci diggante personnel ak ay ay jumtuwaay yu mel noonu ak ñi fa war a ci jumtuwaay googule sax euh, du ñàkk jot ngeen waxtaan ak euh, seeni résident euh, ñi nga xam ne bokk nañ ci seeni syndicat te féete foofu ndax tey boobule structure muy hôpital bi ci boppam mën na aar boppam ci lépp li nga xam ne moo jëm ci wàllum kaaraange ci wàllum dispositif. waaw xam nga hôpital boobu centre de santé la woon euh, ñu def ko hôpital. Mhm. bon xëy na matukaay yi waroon tax mu nekk hôpital moderne ko hôpital bi ñu war a wax xëy na xëy na mhm. wante loolu li ñu naan technique moo mën a wax euh, ci mbirum technique ndax courant bi fi mu war a jaar jaar na fa ndax am na ay ay jumtuwaay yi nga xam ne mën nañu aar safara wala mën nañu fexe ba ba safara dafa war a mun nekk. Mhm. donc loolu moom comme moom la wax daal am na ñoo xam ne ñoo ko war a saytu euh, te affaire boo xam dafa nekk justice ñoom ñoo mën a wax lii la wala lee la mais man ma toll fii dama ma lingaar mhm. bon di wax ni lii moo waroon amoo la ni nekk ko parce que dafa am ñoo xam ni seen i seen i la seen xam-xam la et ñoom la ñu war a sant pour ñu fekk loolu mhm. tey jii ah. mu am lu ñu seetlu suñu focus su tey bi sax jot na koo yaatal mu ay mu problème man jafe-jafe plateau médical bi nga xam ne saa su nekk askan wi dañ koy ñaxtu prise charge bi tamit ci hôpitaux yi euh, guddi gi rawatina ak week-end yi tey yéen ñii di syndicat nga xam ne tey da ngeen taxaw temm ngir jàppale liggéeykat yi wala sax taxawal liggéeykat yi ndax loolu tamit da ngeen koy waxtaanee. ñun ñun bi syndicat bi juddoo ba léegi. loolu mhm. ci loolu saa yi ñu xeex dégg nga ñuy wax ay plateau technique même revendication yi lu mu bari bari même bu dee affaire koppar ma nga ci si revendication yi parce que bu ñu neexoon sax koppar rek la ñu revendiquer parce que syndicat du parti politique du daayira dañ ko créer pour défendre suñu intérêt battre et mourir. Mhm. pour nañ gis ne ñu défendre suñu salaire ak complémentaire. Mhm. mais ñun toujours ci système bi la wax muy santé action sociale. ba tax na nag mënuñu réew mu toll ni Sénégal amay budget quatre mille milliards santé nga jox ko deux cent milliards or besoin santé yi comme ni ñu ko wax ak besoin éducation lu benn besoin santé balaa nga nit ki di juddu booba muy génn àddina am na ay dépenses yu ko def alors que njàng demul noonu te pourtant njàng mi buñ ne ay def nañu jox ay ay quarante pour cent santé mun na sax dix pour cent bu mat te alal jooju moo war a mun a tax euh, hôpital yi ñëw parce que hôpital moom mooy vitrine système comme ñu koy waxee parce que nit ñi bu ñu demee ba ñu suuf mënuñu dara ñëpp hôpital la ñuy mujjee te hôpital war na mën a yooyu hôpital bi nag réformé nañ ko mais bañ ko réformé joxuñu ko alal ji mu war a yu a nekk te loolu aussi ñu koy doxal nekk ñëpp ñu ñu ko war a doxal problème yooyu yëpp ba nga waaw uh-huh. ah, ba tax na nag bu fekkee euh, budget wu quatre mille milliards nga jox milliards ministère de la santé le ministère de la santé aussi onze milliards ah, lay génne ci deux cent milliards yooyu pour mu faire fonctionner hôpital yooyu yëpp ñu nekk fanweer ak juróom-benn te c'est que weer dana nekk ñeent fukki hôpitaux quarante hôpitaux ak établissement non hospitalier uh-huh. nga jox leen onze milliards loolu jëriñu leen dara moo tax hôpital bu mel ni Dantec ah, juróom ñaar fukki service ak juróom benn am na amoon na ko vingt six service mhm. mais boo ko defee ci at mi benn milliard ak genn wàll te benn milliard ak genn wàll boobu am na presque trois cent millions yoo xam ne problème courant ak yooyu la mhm. euh, alors que moom bu defee bilan bu defee at mi jeex defee bilan day fekk ni dépensé na am na cinq sept yoo xam ne récolté na ko jaay ko mhm. maanaam am na juróomi milliards yoo xam ne ne ci poche malade bi lay jóge wala accompagné yi da nga loolu moo tax njëg yi daal di cher parce que hôpital droit à la santé am état dafa war a financer li naan la mm-hmm. tax na nag ku li nga war a mën a demee marché moom lañ la war a jox nga demee ko marché loolu mooy wax bi léegi nag tarif yi hôpital bi ah il faut que mu cher parce que bu fekkee xaalis bi gouvernement bi war a joxe matul. mais nit ñi aussi il faut ay tarif nga xam ni pour mën a fexe ba am ju alcoom bu nga xam ni mooy tax ñu mën a fonctionner parce que mënuñoo fekk te nag ma ma ma ma ma xamala leen wala ma rappelé la ko. Hmm. Euh, li ñu naan tarification hospitalière am ci hôpital bi. Euh, xam nga hôpital dafa am ñaari tutelle tutelle technique bi mooy ministère de la santé tutelle financière bi mooy ministère des finances wante nag tarif yi ci seen wàll boobu ministère du commerce comme comme mooy wax affaire ministère de la santé ak ministère des finances dañ ñoo signé ñu ne pratiquer ci hôpital bi bu dee laboratoire bi warul yées nangam warul passé nangam dañu ñuy wax plan plafond ak plancher léegi nag conseil d' bu nekk moom mooy ci moom mooy def seen réunion mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw direction bi. Mm-hmm. ñoom ñoo naan tarif yi la ñuy pratiquer bu ko defee nag ñun ñuy pratiquer ko léegi nag am na ñu mënal seen bopp ñeneen ñi ñu mënalul seen bopp moom Euh, gratuité yooyu am na aussi tiers payant mais bu fekkee tiers payant bi nee na man danaa fay ba pare heure bi ñooy fay lu mel ni CMU wala lu mel ni état ci boppam amel kër gi. Mhm. mais day ay problème loolu la ñu ay dépense hospitalière fi mel noonu. léegi nag plateau technique ci boppam bu caagee nu nga ay ay machines yu bees donc déedéet machines yu bees yi ay nit ñoo ci liggéey. yaa ngi dégg ñun ñooñu nag bu ñu wala di di awalante popil le faux. Mhm. di di di di am ay repos yu mel noonu. mais de tey am qualité suba doo am qualité tey mu sooxe suba mu baax alors que loolu loolu ñu naan hôpital loolu taxul woon ñu réformer hôpital yi. et justement mu am beneen coow bu fi ne muy tey ay euh, nit yi nga xam ne dañ leen di affecté ñu bañ a rejoindre lieu d'affectation yooyu la lan mooy sa xalaat ci mbir mi. waaw loolu ñooñu teg nañu ko fenn man laaj nañ ma ci naa ko parce fekkee état ci boppam moo la fayal école primaire fayal école secondaire ak université. ba nga am sa bac nga dem def sept université boot yi nga encore spécialisation bac plus douze mhm. nga demal nga liggéeyal Sénégal dama liggéeyal Sénégal loolu tegloo ko san donc loolu moo wax mais yeneen li am solo aussi nañu créé ba ñooñu tamit daal di bare bu ñooñu bare woon kon chantage yu mel noonu du am wala leneen mais comme que ñoom bare wuñu te xam nga lépp lu néew rek lu lu bare wu rek day joxe. Mhm. ndax jàpp nga ne ministre bi war na mën a sanctionné ci mbir man na ko sanctionné parce que bu ñu nee affectation sax dañ koy wax nii waaye affectation ministère de la fonction publique moom mooy daal di affecté ministère de la santé. ministère de la santé yóbbu ci ay bërëb. moom ministre de la santé moom mooy employeur bi parce que moom mooy moo na mën na sax tàgg salaire moom mën na ko yaa ngi dégg mën na tàgg salaire salaire bi ci boppam léegi nag aussi bu dee médecin la tamit médecin buy liggéey boo génnee université taxul nga nekk nga war mën a liggéey boo génnee am sa doctorat en médecine aussi euh, il faut que nga inscrire tableau ordre soo inscrire loolu yaa ngi def médecine illégale dafa mel ni keneen koo xam ne xëy na comme yow wala keneen dem di di hmm. def lu mel noonu hmm. ba tax na nag ministre boobu bu ko neexee mu demande ordre des médecins bu ko bëggee inscrire ci tableau bu ñu ko inscrire daf ko du liggéey loolu loolu loolu loi moo ko wax du man maa ko inventé kat donc loolu mun nañ ko mun nañ sanctionné def naa war ñu mën a foofu gis nañu sax ci benn hôpital koo xam ni fonctionnaire la ñu euh, ñëw mais comme que li muy am xëy na doyu ko bu démissionné ba pare hôpital daal koy jëlaat contrat loolu loolu jox nañu xabaar ba moom ci benn hôpital donc loolu jaaduwul. d'accord jeexaleeg ànd ci ay simili rek euh, tey jii ngeen am benn euh, préavis de grève bi fi ne ndax ba ngeen ko déposé léegi jot ngeen am waxtaan ak ñii di autorité yi. Ah, le le le ko le douze lañ ko ah, ah, déposé woon. ah ko déposé woon. ministre bi ministre fonction publique comme que moom mooy jiite gouvernement bi ci ci négociation yi ba mu toogee ba ba fukki fan ñun foogoon naa ne foofu ñuy woo ni leen kaale ñu waxtaanee mbir yi parce que mbir yi depuis deux mille dix huit la woon pour yéen yéen ñi dem ko eh, dafa ñu bindal leen rek naa leen code du travail ne ay loi ne ne mel ni ñun dañoo xamul loi waxamuñu code du travail ne nañ ko nag li mooy daal Euh, fanweeri fan moom la buur moom la loi wax ni boo déposé préavis de grève bu amul waxtaan wala amul solution wala mhm. nga dem grève mhm. na ko deux mille dix huit noonu la defoon dañ ko joxe préavis bu début février dafa xaar ba fin février ba mu ñaari fan mu woon waxtaan bi juré dara ñuy nekk di dugg ak génn def ay plan d' mhm. bi bi monsieur le président xamee ne mbir mi mi ngi mi ngi mi ngi jéggi dayoo ci la ñu woo daal di réglé wala bu mu mënoon réglé yi ci des mu ko réglé après les élections xaw ma lan yaa noonu la demee mais ñoom ñu leen santoon sax moom ak Diouf Sarr am na lu bare yoo xam ne defuñu ko ba léegi ñu ngi traîné loolu moo waral ñu ñëwaat def naa mënuma a pare am ay accord ba pare mhm. di gréwa encore pour ñu appliquer accord yooyu di wërwërloo naa li ko war moom mooy dajale gouvernement bi daal ni lan lañ defoon deful fan la ñu war a a jëm ñu régler ko surtout que premier mai léegi mu ñëw loolu moo doon cërëb mais ñun euh, xam nañu lu ñu a def euh, bu bu jotee dañ def lu ñu war a def mhm. ñu lay jaajëfal bu baax a baax Mballo Dia Thiam waaw man maa ko dëkk VMO et puis euh, yal na ñu yàlla doon jàppale aussi. Amine euh, ñuy fàttali ne moo jiite And Gueusseum doon secrétaire général syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale muy SUTSAS.